ñu ngi leen di nuyu mbokk yi di safoo di bàyyi xel télévision bi nga xamante ne bi rek moom ngeen tàmm saa ne di fi jot ay xibaar saa su ne wante itam ay grand reportage comme niñ leen koy defalee saa ne fii nga xamante ne bi rek moom mooy fi ngeen tàmm daanaka rek tey fi ñu nekk nii xam ngeen ko sama ginnaaw gis ngeen ko moom mooy stade Léopold Sédar Senghor wala ñu ne ko stade Amitié fii nag bërëb la boo xamante ne bi ay mécaniciens dañ fi doon seen doole lu yàgg lool ay at a ngi guddi boori une heure matin ñi nga xamante ni bi rek ñoo di kilifa yi ñëw daal di leen di fekk ci seen bërëbu liggéeyukaay dëjëti leen fi maanaam def benn opération de déguerpissement boo xamante ne bi nag ñoom ci seen i kàddu nee nañu ñetti fan dong lañ leen may ci délai maanaam sommation bi ñetti fan lay durer loolu nag nekk loo xamante ne bi tey ñoom métit nañu ko ndax te ñu bëri si ñoom tey jamono ji dañoo toog di ko gis ci image yi liggéeyuñu te ñu ngi jëm ci tabaski daanaka di ci des matul sax weer ñoom nag di ay père de famille ak ñoo xamante ne bi ay jeunes lañu doon daan seen doole ci bërëb bi doon ci suturloo tey ñu ñëw rek jëlee leen fi mu nekk lu metti loo xamante ne bi tey ñoom àddu si daanaka yaatal nañu ko bu baax baax wax itam ci li nga xamante ne bi rek moom lañ leen proposé di ab bërëb bu nekk ca Diamniadio ngir ñu mën faa dem daan fa seen doole muy loo xamante ne bi nag ñoom yëkkati nañ ci seen kàddu ku ne ak na ko jàngatee ba ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy clients yi ñiy faral di ñëw indi seen oto pour que mécaniciens yi réparer leen ko ñoom itam yëkkati nañ ci kàddu wax itam lan la ñuy xaar ci nguur gu bees gi dem nañu sax ba ñenn si ñoom ne am nañu benn sentiment de découragement boo xamante ne ñu ngi koy dund ndaxte liñ leen diggoon ci jamonoy campagne ak li ngi leen woon jamono ci am na lu ci wute lu bëree bëri ñu àndandoo mbokk yi ko dem xool li nga xamante ne bi rek moo fi am fii ci stade Léopold Sédar Senghor daal itam kàddu ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy ay ñu jëlee leen ci bërëb bi salaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd seeni Badiane nekk fi secrétaire général euh, euh, rénovation automobile benn association bu fi nekk bu ñuy wax rénovation automobile euh, ay mécaniciens ñoo ko seq ak ay maanaam képp koo xam ne di daal yaa ngi ci automobile ci nga bokk quoi en même temps nekk membre membre Revaz Dakar ak Revaz national nekk membre bureau aussi Revaz di aussi coordonnateur Monap. les artisans de patriote Padois man seen coordonnateur fii ko benn kuréel boo xam ne nii dañ ko sosoon ci euh, veille euh, avant ñuy dem ci élection yi lañ ko sosoon euh, doon jàppale président Ousmane Sonko waaw muy monap les artisans de Pastef man maay seen coordonnateur fii. waaw fii fii moom bi ñu fiy sanc yàgg na sanc bi aussi li ko waral mooy ñàkk bërëb bu ñu liggéeyee moo ñu fi indi woon boobu stade bi melu nii boobu atelier yi fi nekkoon sax matul vingt vingt atelier ñun bi ñu fi nekk bi fi nekk presque ay dix personnes dix ateliers ñoo fi nekkoon euh, doon fi daan suñ doole boobu nag euh, anarchie bi fi am après nii amu fi woon waaye franc mesure ñuy dem ku nekk xam na secteur artisanal automobile am nañ jafe-jafe fu ñu liggéeyee ku ñu dëgër piir feneen wala amoo foo liggéeye ngay ñëw stade di fi liggéeyee looloo dem tax ba mujj gi ñun dem ba mujj bi nekk fi nombre presque mille mille cinq cent et quelque wala sax mu ëpp ko ñu fi liggéey depuis depuis deux mille deux mille deux mille deux mille deux mille cinq ba léegi presque booy xool waaw loolu daal moo ñuy doon fii du du nag directeur stade moo ñu fi joobu du maire moo ñu fi teg ñun ñoo ñëw am jafe-jafe fu ñu liggéeyee ñu ñëw ci stade bi di fi liggéeyee waaw loolu moo ñu di woon ci stade bi bi ñu demee daal ba ba ba mu ba mu xaw a bëri nit anarchie bi commencé bari am yeneen acteurs yoo xam ne dañ ci bokk aussi euh, di ñëw di bokk ak ñun liggéey bi lu mel ni ay camion këriñ ak ak ay jafe-jafe yoo xam ne ni maanaam ay garage ak bi ñu demee daal ba ñeneen acteurs yoo xam ne bokkuñu ak mécaniciens yi ñëw di di bokk ci biir nekk ci biir stade bi di fi liggéey ci jamono yooyu lañ commencé am jafe-jafe bi waaye nag jële bi aussi euh, saa yi ñu fi jëlee. ay sommation deux jours lañ ñuy jox trois jours te ku ne xam na ne ñaari fan noo ci préparé wu pour jële fi li fi ne lépp parce que biñ ñu fi njëkkee déguerpir 2015 booba ay cantine ak ay restaurant ay atelier maanaam li ñu fi yàqaloon presque ëpp na ëpp na sept cent mille ëpp na euh, euh, euh, sept cent cent millions ëpp na ko cent et quelques millions la presque biñ ñu fi jëgalee de parce que jëloon nañ euh, huissier def ko saag yëpp waaye li ñu fi yàqaloon 2015 daa ëpp na lool biit même chose euh, sommation trois jours lañ ñu jox quatrième jour bi ñu ñëw guddi gi ramassé fii yëpp daane fi kanti gi yaa ma gën a gis yow après boo defee tour bi di nga gis yóbbu fa ay oto te gëm naa ne aussi loolu waroon waxtaan mënoon na ci am parce que ñun ay xale lañ surtout fii ay xale ñoo fi ëpp xale yoo xam ne nii démb bu la neexoon ñu dugg ci gaal yi bu la neexoon ñu jaar ci désert bi waaye xëy na jëluñu opté wuñ loolu dañu jàpp ne seen réew lañ bëgg a toog liggéey état nag vraiment man jàppoon naa ne moo ñu war a mën a accompagner ci loolu nit ki mën nga ñàkk foo liggéeyee jooy ko sa sa njiitu réew ñu jàppale la loolu moo ñu bàyyi woon ci parking bi waaye nit ñi def ci moom jàpp naa ne nekkul ci ci ci voie boo xam ne nii voie développement la wala wala recrutement des des jeunes. ah ni ñu koy dundee lu am lu ñu naxari rek te mënuñ ci dara waaw naxar dong lañ koy dundee parce que yow mënoo chaque at ñu ñëw fekk la gaan foo taxaw ñu jëlee la fa foo mën a taxaw ñu fekk la fa jëlee la fa loolu dafa mënut a continuer. ñoom digoon nañu ay place pour ñu dem fa nañu jox place ñu dem liggéey moo gën même lii bu nekkul yoon fi ñu nekk nii mais nañu yóbbu fi nga xam ni carrément fii yoon la ñu ñu dem toog foofu nekk fa. mais booba léegi mënuñu jox place bàyyiwuñ ñu liggéey chaque année ñu ñëw foo toog jëlee la fa tamit dafa métti ñun nañu yóbbu fi ñu wax ne fa la ñu may mooy euh, kii nu mu tudd sax. nduxura nduxura pël la xam nduxura waaw mais nañu yóbbu foofu ñu dem liggéey foofu moo ñu gënal ñu bu ko defee sax ñu am foo xam dañ fay toog ak xel mu dal mais lii moo mënta continuer. mais fii ñu gënal foofu fii moo ñu gënal foofu gis nga fii commune bu ne commune bu ne fii ci dakaar mënoon nga am foo recaser ces artisan fii commune bu ne mën nañ def loolu mais loolu lañ ko tere def man looloo ma jaaxal la moo leen tere def loolu commune bu ne fii mën nga am foo def say artisans ñu nekk fa say doomu dëkk fu ñuy liggéeyee loolu mën na nekk naxaar rek mooy li ma la wax rek métit naxaar kese lañ koy dundee waaw ku ne amoon la naxaar fii moom da ngay neex rek ñëpp a mer waaw lii moom métti na trop gayen métti na bopp métti yem mais fii li fi nit yi mën mënoo ko xa mënoo ko xayma ci parce que yow da ngay ñëw rek fekk ñu yàqal la mënoo ko ma ci dem ak tey donc koy ngay toog ba mu yàgg xam ni sa lii dem na sa lee dem na sa lee dem na mais mënoo toog rek xam li nga li nga yàqule mënoo ko xam. waaw metti nañu trop comme li muy méttee boroom kër yëpp parce que borom kër moom bu xëyee amul fu mu daane doole rek am na am na lu ko naqari. waaw avertiroon nañ ñu mais benn délai bu gàtt lañ ñu jox délai trois jours trois jours moom ku ne xam ne ne chef d'atelier mënu cee déménager mais nag ñoom seet leen neex la ñu def. Euh, trois jours borom kër surtout chef d'atelier mënu cee déménager wu. bu fekkoon dañoo jox délai bu gudd sax dinañ mën a préparer wu bon waaye nag comme ñoom noonu lañ ko bëggee te ñoom ñooy suñuy autorité noonu lañ ko xalaatee ah tegee ñu ko noonu dañuy dañuy nangu loolu dañ koy nangu waaye doonu lu ñu neex nag doonul lu ñu neex parfaitement parce que ci réew mi la ñu bokk quand même ci réew mi la ñu bokk ak Sénégal yi lañ. waaw ñoom nag jotaguñu agsi fi exactement fii ci suuf waaye yàlla dafa dogal mécanicien moom boo laalee moromam rek laal ko. et puis euh, jox nañu sommation ñun ñi si suuf sax jox nañu sommation pour ñu jógee fi bon jàpp ne daal ñun ñëpp benn lañ boo laalee kii laal nga kële. apprenti yu bari apprenti yu bari ku ci nekk yaa ngi quatre apprenti wala cinq doon ay xale yoo xam ne dañuy jàng métier te état mosul dugal loxoom ci loolu état mosul dugal loxoom ci boo yi jàng métier te dañ ne dañu fay bëgg a jëlee chômage bëgg fee jëlee chômage ba pare wëlbatiku indi ay chômeur amul sens boo fi bëggee jëlee chômage da nga war a nit ñi fa ñuy liggéey nga dooleel leen. pour loolu mën a am njëriñ quand même loolu loolu la ñu foog ne loolu looloo war a am waaye nag bëgg fee jëlee chômage ba pare wëlbatiku ñëw di dégar piir nit ñi di booy yi jàng métier nga jëlee leen fi ñu dem di taxawaalu ji wala ñu dooni ay agresseur wala ñu dooni leneen amul sens dañoo war a xool li nga xam ne mooy doxal réew mi ñu nekk ci ñun ñëpp bu ñu ñëwoon roof ñu loxo waxtaan ak ñun xëj na dina demee neneen nudut mais nag buñ ñu découragé loo ci sunum réew mi nga xam ne fi lañ juddoo fi lañ yaroo amul sens fi lañ juddoo fi lañ yaroo ñun tax xamuñu fenn fii rek lañ xam fii la ñu xam fii la ñu fii la ñu fii la ñuy dund te fii la ñu fas yéene dee bu ñu dee fii la ñuy suul waaw depuis 98 ba léegi 98 ba léegi ñu ngi ci stade bi waaw dundu nañ lu mel nii ay at ci ginnaaw dund nañ ko waaye foogoon nañ ne ak nouvel gouvernement bi dina dina demee ñun neneen nu bokkut ak nii dina ñëw euh, waxtaan ak ñun sensibiliser ñu teg ñu ci yoon ndax ñun loolu lañ doon xeex injustice bi fi amoon moom lañ doon xeex mu jaraloon ñu nag lu ne mu jaraloon ñu sunu bakken ñu jox leen sunuy doom jox leen sunuy rakk jox leen sunuy jarbaat ba ñu toog fi ñu toog tey normalement yii bu amee waroon nañoo mën a ñëw waxtaan ak ñun bañ a trouver terrain d'entente ba xam nan la ñuy def waaye nag ni mu demee nii bett nañu a ah franchement parler bett nañ ñu franchement parle c'est que nag euh, wax ji mu mu munul mel comme man sax ni ma ko bëggee parce que comme àddina laay waxal am na loo xam ne du ma ko mën a wax waaye nag metti nañ ñu moom bu la ko borom kër waxee war nga xam carrément que ne metti na ko. te ni mu koy méttee noonu lay méttee famem noonu lay méttee ay xaritam noonu lay méttee noonu lay méttee tous les sénégalais waaye nag comme ñoom ay autorités lañ aussi am na loo xam ne ñun mënuñu ko ci. dama ñëwoon pour indi oto bi pour ñu defar ko fii mais dama fi fekk xale yi am yar yaru nañu amuñu benn problème xale yi baax lañu su nekkoon état bi bu leen mënee jàppale fii aménagé ko ba mu gën a rafet ku nekk ñu dagal la foo xam ne sa atelier daf fiy nekk bu paree protéger leen parce que xale yi am jom lañu ñu nangu liggéey. fonk seen bopp xale yi daal nañ leen jàppale état bi na leen jàppale mun leen encadrer ba nga xam ne que surtout sàcc yi ñoo leen di gën a sonal fii da ngay gis nit jël oto jàmbur ñëw tekk fii liggéey wàcc dem mu ñëw fekk ñu demoon te yóbbu te du yoon normalement xale yi ay xale yi ndaw lañu dañ leen a nar a encadrer toppatoo leen ba xale yi dem ba ñu mënal seen bopp ñu ñuy jàngal métier. demal seen bopp ba nga xam ne du ñu tàllal loxo di ñaan ceen du ñu jénn di ko agressé jël alal jàmbur vraiment man yàgg naa fi ñëw di defaat mais xale yi baax la ñu nag amuñu benn problème wax dëgg yàlla na neen yàlla na neen état bi jàppale xale yi liggéey parce que nit bi booy ñëw pour jénnee ko fu mu nar a nekk danga koy wutal fu mu nar a nekk mu dem nekk foofu moom mu njëkk a dem seet terrain ba nga koy dagal et baax na ndax baaxul mais tey bu ñu naree jénnee mécaniciens yi yëpp fii yóbbu leen comme jam ñaajoo mais fii tey ku sa oto panne fii Dakar nooy def da leen di jëlee bëri fële da nga leen di mën a def déplacement ñu ñëw ba fii liggéey la delluwaat mais dafay metti xoolal place am dañ leen naroon wutal place yi yàgg mais suuf bu ñuy jël di ko cakkat-cakkat yi di ko jaay borom alal yi di ko jaay étranger yi suñu doom yi sax amuñu fu ñu nar liggéey du yoon fu ñu nar a samp seen atelier di liggéey du yoon nañu waxante dëgg tey nguur bu bees bi bu ñëw dafa nar a xoolaat ñële cakkat-cakkat ñu suuf ba fii amatul benn espace kon xale yi buñ leen buñ leen seetaan nañ leen jàppale xale yi ëllëg ñoom ñooy mag yi ëllëg ñun mag yi jeexal nañu ah mais ñii ñoo fi des suñu ay doom lañu suñu ay sët lañu kon nañ leen jàppale état bi na leen jàppale seet fu mu leen di teg foo xam ne moo gën a baax am na yoo xam ne dafa rafetul ku néew doole la dar ko sonalaat encore kon kañ lay dem ba mu mën a tekki. ku ne xam na ne gis nañ démb ministre de la jeunesse li mu wax bi muy gàttanu les pèlerins yi nga xam ne ñii dañu dañu war a dem Popenguine daf ne moom jeunes yi la gàttanu jeunes yi. jeunesse bi la soxla waxtaan ak ñoom convaincre leen ba ñu bàyyi gaal yi xam nga bañ a bañ a bañ a seen dëkk mu encadré leen xool nañ la ñuy recaser boo yëpp utal leen liggéey ñoom ñëpp ñu liggéey kon déjà comme ministre de la jeunesse moo wax loolu ñun ay jeunes nekk fii ci stade bi ñu xëy suba teel tey tey tey ci démb ci guddi ay vers trois heures ñëw jëlee fi jeunesse bu toll nii popul euh, euh, kii nombre bi fi nekk kon daanaka booy xool ministre bi ñiy def li ñu ngi ñu ngi yàq li mu bëgg a liggéey. loolu bokk na ci ñi koy yàqal te beneen bi topp mooy jeunesse bi fi ne aussi bëgg nañ ku leen encadrer bëgg nañ ay formation formalisation ba ëllëg lépp loo xam ne nii lu doomu réew di am lu ne ñu am ko seen biir réew bañ a génn di ko jéggiyaane loolu daal mooy li ma ci doon yokk te di wax ne aussi ñun ay maître artisan la li ma li chaque jour rek am nañ njëriñ ci dëkk bi parce que ñu ngi former ay xale di jàppale jeunesse bi di leen encadrer kon ak lu mu métti métti ñun bokk nañ ci ñuñ war a jàppale nii nag nit ñu ko defee ñun moo ñu naqari parce que nee nañ ordre bi ci président ci ci premier ministre Ousmane Sonko la jógee moom moo ne nañ dëggee biir stade bi jële fi ñëpp yóbbu leen en chômage ñu teg fi maliens yi ak jaaykatu xar yi ñi fi jële loolu la ñu wax nee nañ bi ñu defee suñu recherche dañ ne kat premier ministre moo def waxtaan bi ne nañ fi jële képp koo xam ne ni yaa ngi ci parking bi dañ la fi jëlee yóbbu la fi ñu amul fu ñu la yóbbu mooy dañ la dàq ci biti rek yow nga nekk en chômage ay borom kër la nag yoo xam ne dañ doon daan seen doole bëgg luñ yóbbu seen kër waroon nañ leen bàyyi bañ tabaski ba pare ñu jóg leen fii jëlee comme nag état bu bees bii ñun ñu jàppale leen bañ ñu toog jàppoon naa ne buñ ñu buñ buñ ñu jàppale duñ ñu def nii nañ yërëm jeunesse bi te xam ne li fi amoon dañoo bëgg mu jóge fi yii moo fi amoon ñu ko doon xeex kon nag bu ñu demee tey jii ba ñoom ñu toog yërëmuñ jeunesse bi kon ñun suñu yaakaar mu ngi commencé tas ci état bu bees bii loolu daal laa amoon lu ma ci lu ma ci yokk ñun nag duñ toog ci bant bi di ko gor waaw parce que dañoo bokk ci parti bi xeexal parti bi kon bu ñëwee ba tey am nañ yaakaar ci ñoom war nañu mën a jàppale. nu nga ko dundee mooy am métti rek am lu ñu naqari rek walaay walaay xëy gis sa bagage yëpp dem neexul si xool daal ndax bu ñuy yëkkati mën nañu yëkkati rek moo gën ànd ak ay sàcc yoo xam ne amul ay sàcc yoo xam ne amul benn njëriñ. suñ ñu ñuy am amul leen njëriñ ñu la ñuy amal njëriñ rek après ñu ñoo dem plaignant ñoo dem tëdd ji saa borom kenn ku ma si baalu rek prison laa jëm xam nga loolu neexul si xol ndax ndax samay bagage kantin bagage gars yi sàcc nañ yëpp boo dugg après caméra ne oto oto sax yu mënul yóbbu pour yooyu leen dindi pour yooyu maa nga yooyu mënoo dara kantin bi gis nga gars yi daaj na kantin bi moo nekkoon fee jël nañ ko jël bagage yi xam nga ay bagage jaamu ñoo fa nekkoon ak samay bagage yóbbu nañ yëpp ak kantin yeeg yëpp yóbbu nañ ko xam nga comme moo métti si xol waaye bu dul wóoree loolu dara méttiwul si xol Zantier Zant oto bee rek cent et deux cent mille may loo quatre Zantier Ford Escape nouveau modèle bee loolu may loo ko. quantité bi du si nekkoon ay batterie oto yaa ngi bagage yi ma demoon ay boîte automatique nga si am na boîte boo xam ne cent mille lay jar léegi du nga ko jëlee du nga ko koy def feeraay da nga koy def tas ko dem jaay ko yàqal ma léegi instant maa gaa yi ñooy des ñu am xolu baal ma baal ma ñu am xolu baal ma lu may tëjee rek laa beru 2015 bi maa ngi si parking bi maa ngi dund yu metti maa ngi dund yu neex yi bu tay bi nag dafa gën a pire ndax mosaan am sax den ñu may ñu jël suñuy bagage yóbbu ko ndax préfet lu mu man man man daal ñu si jàppale sax waaye génn leen seen bagage yóbbu leen ku ñëwul policier bu jigéen dañu ñëw policier bu góor te ñu ñëwuñu sax policier bu jigéen waa li def nii mënuñu ko ji sa sàcc yi booy yi ñoom ñooy sàcc yi ndax lu booy yi ndax kantingu jaamu boo ñëwee daaj ko tey yor camion ba nga doon daraan moo ne tamit yëkkatiku nga gis bagage yu nekk war nga mën a respecté nit ki def comme sa alal na ko dina jël sa sa bagage yi waaye na ko yaa ko daaj ji yi jël ko kon ñoom ñoom ñoom ñooy sàcc yi ah ñoom am si ñoom yaakaar rek waaw Sonko ak ak Diomaye Faye am si ñoom yaakaar man ñoom sama président gis nga sa laa sol man xeexal naa leen guddeeg bëccëg loolee daj naa ko tëj nañ ma def na lu ne ndax son ndax Sonko waaye Sonko deful ñuy moo man merew ma sax Sonko lii xam nga comme exemple seen Afrique lu ko koy yàq mooy nit day neexal nit moo yàq Afrique nit toog nit day toog néegam nit ñëw di ko neexal di def yoo ne pour neexal diw la yooyu moo fa war a jógee boo gisee ñu xeex joxe woon suñu baxan joxe suñu xaalis joxe lépp ba ànd ak Sonko li régime bi leen bëgg li leen bëggoon mu jógee fi année quatre am nit mooy neexal nit yëpp ay nit ay neexal nit moo waral lii di am waaye Sonko am na yaakaar moom nañu ñu jàppale ñun ndax ñun lu ma am na ay emprunté emprunté yi booy booy correcteur rek ñoo fi ñëw booy correcteur indiwul nañ ko boo xam ne ko dàq école moo fi ñëw ay boo xam ne seen dara baax la ñoo ngi ciy góorgóorlu ñoo ngi ci góorgóorlu ñoo jàngal métier léegi Sonko moom nañu jàppale rek bu ñu may xaalis comme état yu njëkk nu ne def bu ñu gis ko am am naqari mu woo ñaay nit loolu ndax bu defaatee loolu duñu si jot ñun ndax loolu moo ñu sonal ba léegi ndax Massar utilisé nañu fu ne Massar yóbbu nañu fu ne fu mu def meeting dañu am fii njiit suñu njiit bi lay jaar na waxal sa gars yi ñu ñëw ndax jam ñaajam lan war a jox foofu ay hectare ay kii suñu njiit boobu wax ñu ñu ànd ak moom jël ay njaganjaay yi ànd ak suñu njiit ñu taal seen oto yi mu utiliser ñu loolu mooy utiliser yóbbu fu ne ba ne ba jam ñaajam ba ne unité jam ñaajam lañ xam ne ñun duñ am jam ñaajam jam ñaajam lu hectare boobu ñu si ma ngeen seen Dakar si lu ndaw loolu ñu xaju ñu si non bëgg nañ dem waaye ba nga xam boo demee ba foofu ba wàcc yow boo demee ba foofu ba wàcc di nga xam ne lii stade rek ma ëpp na matu ko waaye sax ñu fi nekk rek fees nañ foofu waa waa Colobane ñëwaguñu waa piste ba ñëwaguñu Massala fa jël benn Massala daal moom daal Colossaa bi sax moo ko liggéey Colossaa bi si parking bi yëpp moo ko liggéey boo seetee bis yële ngay bis Tamba la gis nga boo ko jegee Njaga Njaay ñoo fa nekk yëpp moo fi indi xam nga boo boo tabaatee gaz ñoo fa nekk iskan la boo ñëwee nii gaz moo nekk yëpp Massala moo ko keree keree boo dee Massala moo keree moom moo bàyyi tax ñëpp ay terrain lañ yoroon moo nangu terrain tabax ko kër comme comme camion yee nga gisee camion suuf yee xam nga camion suuf yee fee la si ginnaaw fële pàq ba xam nga dégg nga kàmb ga dégg ga moo nangu kàmb ga terrain yi tabax ko def ay kër indi leen sànni leen fii état moo warul doxee nii état warul doxee nii léegi du fi dajale lii yëpp nag moo tax il ñu jóg nangu nañ jóg tax fi estar la estar bi ko bokk bu nekkee jóg bi man bañu ma jóg waaw lu ma metti mooy suñu def suñu bagage moo ñu metti nii comme nii rek ñëw fekk sa dem bagage moom moo si benn ay nit a ko moom te nit ñoo est am xol baal la ñu am xol baal dinaan ñu la dañ lay kon nag Diomaye Faye fu mu tëdd ji woon lañ tëdd ji rek ñun bañuñ fi jógee parce que parking stade Léopold Sédar Senghor ku ne xam na ne parking bi euh, du pour ay mécanicien du pour ay garage du pour ay ay ay ay ay ay camion këriñ wala camion suuf wala camion bagage ku ne xam na loolu parce que parking stade pour sport la waaye ñàkk fu ñu liggéeyee moo ñu fi bàyyi woon waaye dama jàppoon na ak góor gu bees gii ñun bokkoon nañ ci ñun Revage ak rénovation automobile ak ASC Kambouga ak yeneen organisation bokkoon nañ ci ñu doon xeex déguerpissement arrêté ci ci mécaniciens yi kon jàpp naa ne ñii bu ñu faloo te ñun it ñu bokkoon ci ñi leen fal surtout Monap Monap Padois les artisans de patriote bokkoon nañ ci leen fal stade bi bokk ci ñi leen fal waroon nañ entamer ay waxtaan parce que délai trois jours nga bëgg fi jël ay oto jël fi ay kanti jël fi ay lépp xam ngeen ne loolu mënul nekk mu waroon nañoo entamer ay waxtaan ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ñu xool ni ñu organiser may ñu ba tabaski bi weesu boobaa ñun ñooy jël suñu bagage sax demal suñu bopp waaye comme nii ñu def nii ay borom kër yu fi nekk tabaski li ci des matatul weer nga ñëw jële leen fi te amoo foo leen yóbbu. loolu vraiment bokk na ci lu ñun lu ñu naqar lu ñun ñun ñun ñun artisans yi ak ak ak mécaniciens yi fi nekk loolu daal mooy mooy suñu naqar ni conditions yi ñu fi jëlee mënoon ñu bàyyi ba tabaski bi weesu ñu waxtaan parce que gëm naa ne ak résime bu bees bi bokkoon nañ ci ñi doon wax ne jaay doole dañ ko fi war a jëlee bokkoon nañ ci ñu doon wax ne population bi dañu sonn dañ leen war a jàppale te ñii tey jii ñu fi jëlee tey jii ñoo leen doon jàppale ci xeex bi mooy xale yii ngay gis nii waaw xale yi ñoom ñooy ñi doon ñi doon ge ñi doon xeex di sànni ay xeet ñu leen di gaze ñii tëj ñu tëj leen ci ñii dee ci kon bu ñu demee ba ba loolu weesu yàlla dogal ñoom ñu nekk ci nguur waroon nañ mën a jàppale xale yi fi nekk organiser leen organisation mooy am na état bi fi jóge nii am na lu mu doon defar jam ñaajo presque li ca des bariwul te inséré woon nañ ci stade ne stade ci projet boobu la bokk kon waroon nañoo waxtaan baa ñu ba tabaski bu weesu ñu xool nan la ñuy def ba jot suñu projet boobu man daal lool loolu laa ci amoon lu ma ci lu ma ci wax ci côté boobu. gouvernement bu bees bi daal yërmande lañ yaakaaroon si ñoom ñii ànd ak ñoom ñi leen wooteel sax man laa man parce que man ànduma ak ñoom sama dëgg laa wax comme ren baal ma man ànduma ak ñoom mais ñi ma nekkal nii carrément loo waxoon dañ naan ñii duñ fi toog te defuñ fi ñetti weer wutaluñu ñu dem te lii c'est le contraire lii ma gis nii ak lee bokkut. liñ doon wax waaw muy noonu kon ñii man gis gisuma si ñoom yërmande man loolu laa mën a wax sama dëgg laa wax tamit li ma gis laay wax. waaw ñun bu fekkoon ne yàlla dogal na ñu ñëw waxtaan ñun ci loolu ñun ba Tamba mën nañu dem mais nañ nañ ñu teg ci condition normal parce que du ñu ay togolais ñun du ñu ay nigériens ay sénégalais lañ bu ñu yóbbu woon Tamba ñu dem fa mais nañ ñu teg ci condition yu normal woon ñu ne yéen ay sénégalais ngeen ay doomi réew mi ngeen doomu réew mi dafa am nooy jëflanteeg moom mais nag doo jëflanteeg moom ko am benn benn étranger wala benn xaj waaw mais rafetul. condition normale maanaam comme lan. condition normale mooy ñoo ñëw roof ñu loxo. wan ñu fi nga xamante ni fa lañ ñu jox teg ñu fa teg teg continuellement. ñu toog fa nga xam ne fii moom leer nañu ne dootuñu fi jóg bu buñ ñu koy lebal ñu jël buñ ñu koy jaay ñu jël buñ ñu koy may ñu jël mais nañ ñu fa teg ñu xam ne fii gouvernement moo ñu fi teg ñu toog fa continuellement nga xam ne suñuy bagage yii nii neexul jël ay bagage di ko yàq nii comme sa neexul neexul kenn nag bu doon ñoom sax du leen neex sakantumaa ñun ooy ñun nag amuñu doole am na loo xam ne mënuñu ko am na loo xam ne mënuñu ko ñun xeexuñu xuloowuñu reyante wuñu sànni wuñu xeer ndax ay borom kër lañu te dañoo yori kër yor njaboot moo tax sunum réew duñ ko yàq duñu yàq sunu réew benn jamono lu mën a xew na kilifa yi ñëw toog ak ñun wax ak ñun ñu wax ak ñoom ndax ay kilifa lañ kom ñoom xëj na ñoom fi ñu féete la ñu nit dafa am fu ñu féete loolu moo wax ji boo gisee xale yaa ñu jël gaal yi di dem ñaanu ñu yàlla am sa doom muy jël ay gaal di dem di mu dee mbaa ñu jël ko naar yi jël ko ñi jaay ko si désert bi ah dootu dootoo ko gisatin am ñoo xam ne ñu ngi fi mënatuñu dem ñi dem di mujjee dugg si agressé di di sàcc di rey mais xale yi bu buñ leen wutalee fu ñuy xëy xale yi dootuñu dugg di dem di agressé yi surtout ment ñi defar euh, ay école yoo xam ne xale yi dañ fay jàng métier buñ ko defee développement dina am comme Diomaye ak Sonko ñu ne ñoom dañu bëgg a euh, teg euh, réew mi si si yoon kon nañ ko teg si yoon ñëpp gis si seen bopp ñu wàññaale problème dund bi tam ñun bu ñu sañoon ñun tey ay mag dañuy tëdd suñu kër suñu doom yi di liggéey indi ñëw di ñu jox ñun ñoom ñu takk jabar am ay doom ñun ñu suwee xal suñu ay sët mun leen yar yóbbu leen daare ji ñuy jàng wàcc si ñuy dem jëli leen ñu ko defee kon euh, Sénégal day neex mais Sénégal méttiwul mais nit yi xol yi ñoo xat nit yi ñoo soxot kon man daal maa ngi ñaan yàlla yal na jomaay ak Sonko yal na leen yàlla jàppale fu ñu bëgg a yeggal dëkk bi yal na leen fa yàlla def ñu yegg fa yàlla sutural leen yàlla sàmm leen ñu wàññiwaat dund bi caser xale yi xale yi liggéey di sant yàlla di gërëm yàlla na leen yàlla jàppale merci beaucoup